mel ni ki xulle lig mu ngi ni toog defe naa lig Nicolas ak làmb moom loolu moom mooy géej gi am na ndox maa ngi lay seer la balu ak si weeru koor te weeru koor bi ñu jógee. Babacar nuyu nañ la. ba am nga jàmm. am mbégte lool jàkkaarloog yow gëj nañoo jàkkaarloo. waaw lu ma namoon nag. ah loolu namoon na nga assuré tey de kon. ma bañ a assuré. ah kon boog jeex na mu jëmee assuré. kon boog yàlla na yàlla mottali. li may li ma lay laaj mooy ñi wër. monsieur le maire moo toog nii directeur Koudou Maguette Sène Khadim Samb toog nii ñaar ñii sa digganteeg ñoom boo ma ko doon tënkal loo may wax parce que Khadim Samb nee na ma sàng sama papa nee na moo la ci làmb. Babacar loolu day yomb tontu jëmm ji toog monsieur le maire naa la xamal benn affaire. yàgg nga ci làmb yàggoo ci làmb mais mosoo ma gis ma tuddee politicien di ko sargal mosul am mais kii beneen affaire la. dafa di jëmm joo xamante ne na ko Sénégal yëpp bàyyi xel ndax euh, am na loo xamante ne mu ngi ci moom yombul ci politicien na gars yi nag bàyyi fii laa far rek fii laa far rek bay frustré toujours dafa am loo xamante ne na ko nit ñi nangu bu nit nangul ko ko kii lu mu am nii mérité lu ko ëpp monsieur le maire mérité na lu ëpp loolu te li ma leen di wax bàyyi leen ci xel ci kanam tuuti interview bi dañ ko génnewaat parce que di xam li may wax lan la man li ma du ma waxantu yow xam nga loolu voilà. wax dama ci faral di teg bët bu ñu demee ba ca kanam. ah. am na loo ma daan faral di wax bu ñu demee ba ca kanam dama ci teg bët. waaw des ma ñu dem ba ca kanam ma gis ko. waaw waaw loolu la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal li ma la wax ci début bi nag am na de Babacar dama la namoon torop namoon jàkkaarloog yow jàkkaarloog sa micro tey nag loo ma bëgg laaj laaj ma ko dama baaxoo benn affaire. du sore ci affaire yooyu. vingt et un maa ngi ci làmb la may liggéey xam naa ko. mbër ba ma séqal xam na la ma signé ak moom. CNG bi nga xam ne moo ñu boole suñu contrat xam na lu ne ci contrat yi. li nit di def nag. moom la engagé lépp lu waay di def rek yàlla na ko jik mais man la may liggéey xam naa ko. bal Baldé dañuy dégg combat ñu koy junj fan yi naan Ama Baldé Gris Bordeaux te Ama signé ngeen combat ba def seen euh, yóbbu CNG ba jàpp dat loolu yaa ngi koy dégg ak noo ko déggee. Ama de xale la li ma koy ñaanal man mooy mu am ay mille combats ndax loolu moom lay teralee njabootam. mais àdduna nag dafa am ci lu mu tënku ndax tey bu ma tëggoon combat am jékki-jékki ma jël beneen mbër indi ko ne ko demaat encore ba beneen saison ba ndax damay tëgg mbër mi ba pare xam naan du neex ci xol de ci sama xalaat nañ liggéey rek làmb ji yaatu na yaatu na yaatu na. looy wax waaw di ko encouragé rek ya moom gis naa ne jamono yii mu ngi yëngatu ci yeneen domaine di ko encouragé di ko wax na ne àdduna nii rek la bàyyiwul làmb benn yoon ndax munoon na ne arrêté naa làmb du ma ñëw mais li mu def nii geste bu rafet la xam ne Petite Côte xewle mu dëkk Petite Côte ñëw def li mu war a def te wax dëgg yàlla woowu ma ko woowaanu ma ko moom moo jël initiative am ñëw dañ ciy sant yàlla dolli leneen Afa Ama Baldé Modou Lo. dégguma Afa Ama Modou di ñu jox leen ci làmbu dóor. waaw non loolu nag moom mënu ma ci avancer ndax Ama Baldé bu dee yàlla dëgg la bëgg du combat foo du combat bu ñuy boole ak yeneen affaire signature officielle bi kañ la. le trois juillet laa ko bëgg def ci Gambie. stade signature officielle. 3 juillet. seen première jàkkaarloo lan ngay wooyee signature officielle. maanaam nit ñoom ñaar ñu toog Ama wax Modou wax ñu toog benn taabal. le trois juillet. laa ko bëgg a def ci stade Bakaaw entre payante ci Gambie. Gambia. Gambia. li kontaan naa ci yow. Ah, ñoo la gën a bëgg Babacar. yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla suturaal leen monsieur le maire yaa ngi toog ak Luc Nicolaï dégg nga li mu wax nee na ba muy tëgg làmb ba tey 21 ans mu ngi si làmb mësul tudde drapeau politicien mais sa jikko ak sa taxawaay ak sa melokaan moo tax mu def lii loolu bi nga ko déggee loo yëg. waaw teraanga bu rëy nag la ñu defal tey nag ak honneur bu rëy parce que ku nekk xam na Luc ni mu nekkee self made man lépp lu mu am ci àdduna ginnaaw yàlla da koo ñëfeel boppam. donc musul wéeru ci ginnaaw kenn mu koy yóbbaale bu mel noonu bu demee ba am la muy am tourné waat delloo la njukkal jox la drapeau bi daf laa yëg daf laa bëgg daf la bëgg a jàppale rek moo tax tey mobilisation forte bi ñu gis ko Malicounda yëpp yëg nañ ko ñeneen yëpp yëg nañ ko moo tax nit ñi mobiliser wu fortement ñëw ci làmb ci parce que lutte nekkul ku ndaw donc vraiment ñoo koy jaajëfal di ko delloo njukkal di ko xamal ne nag du ñu gën a gore incha allah fu mu ñu gestu fii ba Gambie dinañu gis si wetam ndax ñoo koy defal ay ñeneen ñu dëkkul fii rawatina nag moom mi nga xam ne ñoo bokk Mbour dëkk fii waaw ñu koy jaajëfal. population bi tamit dama gis ñu mel dañ la bëgg lool lan mooy sa secret ba population bi ma gis ñu mel ni ñëpp dañuy ñëw sax di photo ak yow maanaam cofeel bi lan la. waaw bu dara bu dul wàcc sama bopp rek def sama bopp nit ñoom ñu may gis ni ñu gisee seen bopp doomu aadama yàlla warul laa defal dara ba nga nekk super homme du bu teraanga yi bari bari nekkal nit rek. lu ko defee nit ñi day gis seen bopp ci yow loolu benn la ñaareel bi nag ku ma xam-xam ne sama guddi sama bëccëg yëpp na askan wi jariñu la yóbbu courant yóbbu ndox yóbbu ay école yóbbu poste santé sama 22e village nga xam ne moom rek moo ñàkkoon courant yóbbu naa courant ba taal rek a des yóbbu naa fa ndox ubbi robinet ñu xel rek a des ma doon xaar koor gi passé ma inauguré ko donc loolu mooy sama yitte ba tax na lu may jàpp rek askan jàpp ci. parce que xam nañ ne lu ma jàpp ñoom a tax. Ama Baldé Modou Lô noo ko gisee. ah combat bu rëy de macha allah yàlla na ak jàmm ñu andi ceeg Luc buggee ko ci jàppale ko ci taxawu ko ci incha allah ba lépp mat bu soobee yàlla waaw. kontaan ci yow. naa leen gën a kontaan. waaw dina ñëw Gambie quand même. waaw waaw waaw le 3 juillet. face à face Modou Lô Ama Baldé Gambia. non dinaa dem ngir Luc musuma dem Gambie à part feeñ yoo xam ne sama papa moo biir Gambie mosuma fa dem mais lii dina tax ma dem fa. di nga ñëw ka bii ma defal mënatuma ko fay. lamb ji lamb ji ba ba muy jeex. moom mooy invité d'honneur principal. Gambie Gambie Côte d'Ivoire Sénégal fu ñu dem. dina teew bu ànd ak ndax jikkoo ma tax. ndax añ la bëccëg la sotti lii yëpp a ko gisandoo. waaw li kon leer na. père Khadim Samb nee na kii Gambie 25 décembre rek Côte d'Ivoire rek lépp. Maguette Sène ngeen di àndal. moo kii ay làmb booleetuñu c'est-à-dire lu mu nekk rek dinaa ci ne ndax euh, xam naa ban façon nit la donc du ay làmb moo ñu ndax làmb moom xëy na foofu la ko yàlla dogal jaarale ko foofu mais li ci kanam rawuli bët nañ bàyyi lépp rek xool seetaan. mais cuub bi rafet na. ah cuub bi rafet na cuub. moo ko soloon du mel nii. ah non parce itam nag. xam nga ne bokkuñu